Bonjour, professeur euh, Salif Gueye. Vous êtes en direct euh, sur le site d'information Sénégal 7. Euh, je rappelle également que vous nous parlez depuis Paris, mais que peut-on retenir du scandale qui secoue la toile depuis hier et selon lequel vous avez envoyé des, des images obscènes ou des images à caractère pornographique au recteur de l'université de, de, de et à d'autres membres de l'enseignement supérieur? Alors, quel éclairage pouvez-vous faire par rapport à donc par à ce Bonjour. Donc, euh, je suis présentement à Paris, mais hier, j'ai été vraiment très surpris, désagréablement, donc, euh, de recevoir des coups de fil euh, de ma famille, de mes parents, de mes proches et amis qui, ont découvert donc, euh, dans, les, dans, les, journaux en ligne, comme quoi, comme quoi que j'ai eu à envoyer des images pornographiques donc, euh, à Madame le Recteur. ce qui a entraîné mon limogeage. Bon, je vous informe que cette information est totalement fausse. Effectivement, il y a des images qui ont été envoyées, mais je ne suis pas l'auteur de cet envoi. J'ai reçu ces images qu'on peut qualifier donc euh, mais je les reçu donc en même temps que le recteur. Et donc c'est un collègue avec qui donc j'avais un petit différent qui m'a envoyé ces gemences-là, que je ne peux même pas qualifier de pornographique. Donc j'ai reçu ces images, en même temps que le recteur, il m'a envoyé ça, il copie à Madame le recteur et aux autorités, la chaîne des ministres jusqu'à donc jusqu'au directeur et à des collègues. Donc moi je n'ai envoyé aucune image. Maintenant, du moment comment dirais-je, euh, le collègue a envoyé ces images-là suite à une réponse à un mail que je lui avais envoyé. Le, le a estimé donc que j'avais une part de responsabilité dans l'envoi de ces images Et ce qu'il a fait, donc, elle m'a donc, euh, elle a décidé de me, sortir un arrêté pour me limoger. C'est tout simplement cela. Mais je n'ai jamais envoyé une image pornographique. Pour preuve, je viens comme ça de Fès, donc, euh, où j'ai fait donc, le pèlerinage dans la Zawiya de Cheikh Ahmed Chan. Quelqu'un qui vient, <laughs> donc, euh, vous voyez, donc, euh, de ce lieu aussi sain, comment peut-il envoyer des gens pornographiques Et puis, à mon âge, je suis grand j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai occupé plusieurs responsabilités. Quel intérêt ai-je à envoyer au recteur, de surcroît une dame qui est mariée, des images pornographiques. Donc vraiment, c'est, cet article m'a fait très mal. C'est pourquoi donc je veux que, la vérité soit rétablie, qu'on dise à tout le monde que je pas envoyé d'image pornographique et je ne le ferai jamais. Donc euh, la, les, ces journaux en ligne ont cité comme source le journal, le quotidien LAS.

pour préciser que je ne suis pas l'auteur de ces envois d'images. Donc, par conséquent, je voudrais donc les journaux en ligne qui, ont, qui sont inspirés de cet article puissent relire l'article de l'AS, mais entrer en contact avec les, les, leurs collègues du quotidien l'AS pour pouvoir donc rectifier. Parce que la source a reconnu son erreur, la source a sorti un article correctif, mais il y a aussi les, comment les journaux en ligne. Actuellement, si vous allez dans Google, si vous tapez mon nom, professeur Salif Gay, vous voyez énormément d'articles qui sortent automatiquement par rapport à, donc, à ces scandales, à ces scandales qu'ils ont titré n'importe comment. SMS, pornographique, etc., etc. Vraiment, je souhaiterais que l'on rectifie vraiment ces, ces, ces, articles pour que la vérité donc soit rétablie. Car je n'ai pas envie et je n'ai même pas le temps. Donc euh, je ne souhaite pas entamer des procédures judiciaires pour l'affirmation. Ok, professeur, euh, mais dites-nous que comptez-vous faire puisque vous dites que les images proviennent d'un professeur avec qui vous avez des bisbis. Comptez-vous laisser euh, les choses comme ça, telles quelles, ou bien vous comptez rester en justice justement pour établir la lumière que... Effectivement, donc lors de l'envoi de l'image, j'étais effectivement, il y avait un différend entre euh, ce professeur et moi-même. Mais après cela, les collègues de l'université, donc je, je, salue donc leur intervention, ils sont intervenus et ont fait la médiation entre lui et moi. hier, Donc, euh, il a retiré la plainte qu'il avait, il a entamé la procédure de retrait de la plainte, donc euh, qu'il avait donc euh, et qu'il donc euh, qu'il avait écrit contre moi. Donc, étant donné que il est dans, il est en train donc euh, il est en train d'apaiser le climat. En tant que responsable, je me dois vraiment de le suivre dans Donc là, moi, ce que je souhaite, c'est la paix. Donc, avec tout le monde. Donc, euh, par rapport donc, euh, aux collègues, donc, euh, je, il n'y aura, aura, rien qui sera fait. Je ne vais pas porter plainte. Je, il pas de poursuite. Là, la paix est rétablie. Donc, je sais qu'elle perdure. Donc, pour le bien de tout le monde. Mais, mais, mais dites-nous, professeur, quelle est la nature du différent qui vous oppose avec ce professeur en question Donc, le différent, donc, c'est venu donc euh, d'un fait donc euh, qui donc euh, qui date donc du de fin de, du mois de novembre donc il y avait donc euh, l'élection donc du directeur de l'école doctorale qui devait être faite donc euh, j'ai été candidat on a tous deux été candidats donc euh, pour l'élection du directeur de l'école doctorale donc on était adversaires donc il y a eu donc une mini campagne dans laquelle donc dans laquelle donc on a eu des échanges donc qui ont été, bon, de mon côté, un peu durs. Bon, euh, parce qu'on était en campagne et donc vraiment, la tension est venue de là. Pour moi, j'ai pensé même que vraiment, c'était, c'était passé, mais j'ai été surpris donc euh, de recevoir une plainte de sa part. Comme quoi que j'ai tenu des propos, donc des donc euh, des accusations, donc euh, diffamatoires à son, à son égard. Bon, ce que j'ai nié, Et donc, euh, maintenant, bon, les choses sont réglées. En tout cas, c'était des propos de campagne électorale donc, euh, qui a entré ces différents. Euh, alors, professeur euh, Salif Gueye euh, yaa ngi en direct fii ci site d'information Sénégal 7 ñuy fàttali ni yow yaa nekkoon vice recteur bu université bu Thiès. Euh, ni ki démb am ay information yu daan circuler ci presse national bi comme quoi que euh, da nga yónnee ay image daal ay image yu rafetul yu rafetul dara maanaam ay image pornographique ki nga xamante ne moom mooy euh, Ramatoulaye Diagne Mbengue directeur bu université bu Thiès ba loolu tax sax mu jëlee la fa nga nekkoon di vice recteur alors bi nga déggee loolu ban leeral nga ci mën a indi jërëjëf mu Thior donc démb bi ma yeewoo vraiment dama jot ay appel yu bëri samay mbokk sama yi samay xarit samay am di jàmm parce que man fu ma nekk nii maa ngi France maa ngi Paris fu ma nekk nii depuis ay fan Fass laa demoon ziyaare Cheikh na Ahmed Seydi Chérif bi ma fa jógee ma ñëw Paris donc démb lañ ma woo ñu bëri naan ma lan moo xew parce que gis nañu ni dégg nañu ci rajo yi revue de presse gis ci site internet yu bëri ñu may dëkkal foo xam ne dëkk moo fi nee nañu dama yónnee ay image pornographique pornographe ni xaw ma nuñ koy waxee si olof ay image yu seelul daal parce que pornographe mooy loo xam ne daanaka diggante góor a jigéen ñuy def loo xam ne vraiment jekkul diine bëgg ko ngor bëgg ko islam bëgg ko kenn bëgg ko léegi nag ay image ay xaraam la seetaan ko sax xaraam na sàkkantumaak nga koy yónnee nga koy yónnee kan jigéen parce que recteur université jigéen la yaay la maa ngi jégalu ci coupure bi donc euh, toujours c'est par rapport au images là donc daa li ñu ma doon pour euh, wax na ci loolu donc sama benn xarit moom la doon wax ngi koy dugg yëg ma coupé woon noonu donc dama ne donc image yu ñu wax ne maa ko yónnee image pornographique suñ ko suñ ci wax si olof mooy image yu sellul yu yiwul islaam bëgg ko aada bëgg ko diine bëgg ko ngor bëgg ko seetaan ko sax dafa xaraam sàkkantuma nga koy yónnee nga koy yónnee kan soxna soxna soo xam ne yaay la kilifa la pour rappel recteur Ramatulaay yàgg naa xamante moom bi ma xamante moom léegi war na mot léegi ay at bien avant boobu sax kenn kenn falo ko recteur mosuma ko jox la ko du nuyu góor waaw koo xam ne du nuyu góor ah nga ñëw di ko yónnee image mel noonu loolu ñaaw na rafetul ci deru gor loolu lañ ma loolu lañ teg sama der ne man maa ko yónnee te yàlla xam ne ne yónneewu ma dara image yooyu ñuy wax pour man sax jàpp naa ne du image pornographique image nag seelul bien sûr donc njuumte la donc sama benn collègue moo ma ko yónnee ba ma moo ma ko yónnee léegi nag mu yónnee laa yónnee waale ko recteur Tamatulaay yónnee waale ko ministre bi ak kilifa yu bëri si université bi loolu la man yónneewu ma yëguma tinaan tinuma ma xëy ñuy naan maa yónnee image yooyu image loolu lu muy def nu may mettee daf maa metti nag yónni boobu moo tax comme que site yëpp du ñu wax ni quotidien laas moo leen ko yónnee foofu lañ ko jëlee man li ma njëkk def mooy woowaa quotidien as xamal leen ni ah dañoo juum ñoom ñuy wax ne maa yónnee image yooyu yónnee wu ko directeur sax lettre am bi mu bind wax wax na fi wax waxal si waxal ni maa ko yónnee daa wax ni keneen moo ko yónnee. léegi ñoom bi ñu xoolee loolu ñu xam ne li mu wax dëgg la ñoom seen article seen journal tey génn nañu beneen article pour xamal ñin ñi nii man ma image foofu loolu nag moo tax bi ma paree foofu nag ma ne donc naa woo yeneen yeneen yeneen sites yi nga xam ne kii woon nañu publié woon nañu loolu waxoon nañu loolu pour ñoom ñu rectifier parce que mu nekk nii soo dugalee sama tur si internet rek loolu ngay jëkk tombe te loolu mun na yàq dalay topp topp sa njaboot ay ati at du dañ te mun na yàqal lu bëri loolu daal laa bëgg ñi si publié woon yëpp ñu changé rectifié xamal ñëpp ni man mosuma yónnee image pornographique mosuma ko def duma seetaan porno xamul xamul sax fi ñu jëlee image pornographique man jullit laa doomu jullit laa duma def lu sellul professeur ndegam li nga yow doo seetaan image pornographique dundoo ko du yëfu jullit ak euh, li nu mel léegi est-ce que mën naa xam euh, yow lan nga fas yéene def justement euh, ngir mën a leeral affaire yooyu ndax da nga fas yéene dem justice pour leeral mbir mi wala da ngay bàyyi noonu. incha allah fas yéene ma dem justice parce que ñëpp ci su la tooñee da nga ko war a baal ñun sax bi ñuy tooñ yàlla mu ñuy baal di ko jégalu moo tax ñu wax astafurlah kon nag fas yéene dem fenn pour affaire image léegi nag effectivement amoon na ñagas ñagas bu ndaw bu amoon sama digganteeg sama digganteeg moom mu metti ko parce que man nag damay nit koo xam ne dama dëggu te yenn saa sama kàddu du neex donc dans li ñu def campagne électorale pour benn poste directeur école doctorale donc si campagne boobu nag yónnee naa ko ay message yu yu ñagas loolu métti na ko ba mu porté woon ne dama koy accuser diffamation ba ba accusé ma diffamation suñu collègues yi nag waa université Thiès jàngalekat yi ñi fi nekk ñëpp jàpp nañ fi dox jàmm si diggante bi def médiation def vraiment li islam santaale parce soo gisee problème diggante ñaari nit da nga ci war a wax su aax dox si dox nañu wax nañu ba sonn yàlla def na ci jàmm nag démb nee na dem na police pour retirer plainte bi donc moom li mu nekkoon génn na fi donc loolu day indi jàmm ci diggante bi man nag dama koy fekk ci tànk yooyu tànk jàmm parce que man jàmm rek laa bëgg jàmm laa xam donc du ma ko topp ci dara li ma bëgg kay mooy jàmm ji am sama diggante ak moom jàmm jooju sax parce que sama rakk la te taalibe la cheikh taalibe cheikh la li ñu bokk bari na donc dama koy ñaanal il est encore jeune carrière mu ngi ci kanam yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla jàppale duma koy bu fenn du ma porter plainte du ma def dara li ma mooy jàmm gi sax jàmm gi sax ci université bi jàmm gi sax ci Sénégal professeur Salif Gaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax ginnaaw bi ñu nangulee entretien bi parce que xam nañ ne c'était pas du tout évident diggante Sénégal ak France euh, ñu am entretien bu mel nii rawatina nag ci ci sujet bu xaw a amee sensibilité daal bu toll noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax daal.